moko jité engagé ñu ci si bobu euh ñu def moyen yëpp ñi def maintenant liggéey bobu ba jox ñu raayé bobu duñu ñu xam duñu ñoo Sénégal lañ dëkk du ñoo suñu suñuy mbokk lañ ño xamante dañoo am xereñ ci côté bobu mu nekk université yu mag université Oxford université Massachusetts université Michigan ak yeneen ni université yoo xamante ne ñoo ànd ak américains yi def liggéey boobu ñu ne Sénégal mooy ñaareelu pays si àdduna wargal képp boo xamante ne liggéeyam si wàllu xeexu mbas bi mën nañ ko naw loolu nag du lu ñu war a xeeb lu am solo la lu ko indi mooy taxawaay bi d'abord parce que dañ ne premier critère taxawaay bi taxawaayu njiitu réew mi taxawaayu képp ku bokk si xeex bi taxawaayu population yi après outils yi xamante ne xeex nañ ko est-ce que outils yu baax lañ ñu ne Sénégal outils yi mu utiliser pour xeex xeex bi outils yu mucc ayib la ba paré ñu ne lénen li moy li ñuy liggéey est-ce que Sénégal teg na des moyens pour résilience ci choc yi xamante na ko jot parce que crise bu melni bu amé day am ben choc yu dugg moy comme nga am euh kër rek défar sa électricité ba paré te defuloo fa benn fusible mur bi bu ñëwé bu amé force de courant rek day dugg ci kii bi yàq ko mais Sénégal nak dafa mëna résister ce choc yi parce que président de la république dimbali na population yi sur fond force Covid 19 ñu bëri doon nañ ko ŋaññ mais loolu moo tax tey ñu mën a am situation bi xamante ne adduna bi dañ ko naw ñuy féliciter population yëpp. tey boo ñëwee Sénégal am na réew yoo xamante ne ñaari laboratoire lañ am pour tester te bu ñu laa te bu ñu jëlee test yi bu bu test laa génn mu man ñaari fan ñetti fan Sénégal foo dem si réew mi région boo dem di nga fa fekk laboratoire buy tester te bu ñu jëlee prélèvement si bés bi avant ëllëg ñu jox la sa prélèvement lolu yëpp ay djégo yu am solo la yoo xamante di nga gis ay réew yu mak ñu leen tuddu tam mënuñu ko bon nag ñi ngi koy rafetlu di xamné vraiment lu am solo ngi non bon lolu loolu moy moyen wu riposte bi té lu ñuy continuer la pour vraiment répondre sur sa préoccupation tant que mbass mi ngi ci àddina tant que mbass mi ngi ci Afrique tant que mbass mi ngi ci Sénégal ñun duñu bayyi suñu loxo parce que lolu lañ ñu suñu suñu président santé ñu xeex Covid bi jusqu'au dernier cas